ziar jaajëf ñoom Aliou ak euh, ñaa gaa yëpp rek ñoom Matar ay sa mbay internet yeeg auditeurs yi jërë ngeen jëf kontaan ci euh, Mamadou Mohamed Ndiaye ak euh, Nola Junior Diagne Diagne sama waa ji loolu ne maa ngi nii di la ziar Ababacar. di tuwarkalla tuwarkalla démb de am na ak lëf su lu lu noppalu. ah démb moom ñëpp noppalu. ñu ngi ca Toussaint Dia yeewu nu fajar daal nu nelaw ba kii xaabaabal tuuti sogam di. tubarkalla tubarkalla ana famille bi. sant nañ femme bi sant nañ. ana femme bi. ñu ngi yëg ngeen ni jigéen ñi góor ñi leen ëpp ci réew mi yëg ngeen loolu. loolu de lu bees la moom. nun góor ñi noo ëpp jigéen ñi ci réew mi. Eh, na ko ne yem ci benn fi mu toll nii. léegi seen àqu lay taala. waaw seen àqu lay taala. waaw. yow recensé nañ la. waaw. ñëw nañ sama kër bind ma. yow. man mii kër bind ma. Eh, bindu la. li wax dix huit millions. trois cent mille nangam sangam. Euh, trente deux mille quatre cent soixante treize. waaw quatre cent soixante quatorze ak man. Ah, yow bokkoon ci bind mi binduñu ma de. ak sa waa kër. sama waa kër di wóoruma ndax <laughs> du ma fa yenn waaye man de binduñu ma. mais bu di yeggee dañ leen di laaj. déedéet man sama waa kër yar naa leen yar goo xam ne duñ compter sama njaboot di joxe. ah. ah lu tax ah. maa leen yaree noonu. da nga dugg ci kër kër gi ñaataa fi nekk nga naan diw ak diw ak diw ak diw ak diw. waaye loolu dafa wax ci réew mi tam nu xam. Ah, day tax na mën a ajuster yëf yi. ah man ah, mën a ajuster politique yi ajuster organisation dépense yi ak yooyu yëpp. li bi lay jaañ li nga xam yëpp importance su recensement xam na ko. a xam nga bu ñu demee ba jël programme bu toll noonu. Hmm. dugal ci vingt trois milliards. tubarkal di ko def tous les dix ans. waaw. Euh, ay structure ay euh, organisme yu mel comme banque mondiale di ci jàpp. Hmm, hmm. xam nañ ne njariñ la ci mu réew. ay li ma mënta nangu mooy réew mi góor ñee ëpp jigéen ñi. loolu mooy li mooy li feeñ ci xayma gi. léegi nag na jeune collègue yi jóg. am na booy bu ne baa boolewuñ jigéen ñi rasta ci góor ñi. waaw loolu tam dañ ko war a def les lijjanti. <laughs> dëgg la tamit ah, jaaxal na ma de waaw ah, dana war na ko jaaxal na ma de. jaay lu partenaire yoo. ah ñu ngi fi rek ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñoom partenaire yi ñuy mm-hmm. àndal ci xalaas. comme waxtu wi fii la toll. Mm-hmm. dañ leen di remercier. muy batterie sisa batterie automobile bu baax bi gërëm waa Africa Fly Tour yi tax nit ñi mën a am seen green card mën a dem États-Unis wala mu leen di accompagner ci wàllu assistance visa ngir ñu bëgg dem ci réew mu mel ne Canada ñoo leen di toppatoo lépp gunge leen ba ngeen àgg ñoom waa Africa Fly Tour établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ñi indi gam bi nga xam ne moo di vite fait ñu leen jaajëfal waa Optic Vision Plus Sénégal également saabu bu baax bi nga xamante ne ji moo aay ci toppatoo pou doomu aadama impurité bu mu fekk ci sa yaram da koy dindi ndax dafa am ay gaam yu bari te wuute am na savon créole carotte am savon créole miel ak savon créole citron ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal ci ni ñuy àndee ak ñun ci ci xalaas ñu ñu sóobu ci xalaas yi Ababacar. bala ñuy tàmbali bii da ko hmm. bëggoon def xalaas express mais dama ne ko li ngay wax am na solo am solo goo xamante ne ji damay bëgg nga waxal ko sa bopp. Mhm. ki benn femme la bu nekk Amérique. Mhm. day ko fan yi la ca ginnaaw am na nay manifestation yu fi amoon bitim réew am ci ay consul yoo xamante ne dañ faa dem caxat caxatee ko. Mhm. am na fa yàq consulu ba waaw. est ce que ambassade bi. ambassade bi la woon ambassade bi ca New York. du New York dong sax. mais moom mii nag. waaw New York googu la nekk. Diagne dañu ko waxul waaye ndeke doomi Sénégal yi nekk bitim réew. bëgg ay këyit mënuñu koo am ndax li ñu domage dégâts yi am ci ambassade yi. Mhm. kii firnde la ci déglu mu wax la ñoom coono bi ñuy dund. Euh, man de dama amoon benn cri du cœur bu ma bëggoon ngeen waxal ñu ko foofu ngeen baal ñu li ñu naan euh, ñax bu wow bi dina la kaala bu tooy bi defe naa ne fii moo ñu daal ci ambassade amerique bi ci New York boobu ba tey dañ fay woote mais kenn du wuyu ñu ne liggéeyaguñu te ñu ngi soxla suñu passeport am cas d'urgence yu ñu war a daw rek la ji ko mënuñu fexe ba génn fi dangay woote aussi Washington DC ci ambassade ba pour uti chef sauf-conduit mënuñoo fexe ba ñu wuyuñu dañu ne de office bi dafa close liggéeyaguñu loolu tamit neexul daal du jàmm ma bëggoon ngeen dimbali ñu ci ngeen waxal ñu ko ci rajo bi ñu dimbale ñu ñu ubbi seen ambassade yi ñu ñu liggéey suñu passeport yi lañ soxla mënuñu fexe ba génn fii def dara ndax ku amul passeport amoo suuf conduite doo xam fooy aw pour génn léegi nag ma ne nañ leen woo xalaas mooy kiiw rajo solution bi nga xam ne lu fi nit woote jàmbat ko dina ñu si dimbale ñu waxal ñu ko autorité ci kaw ñu dimbale ñu ñu daal di ubbi seen ambassade yi ñu liggéey xale yi ñëwoon doon xeex billaay ñooñu tukkiwu ñu amuñu soxla fenn ñoom Amérique lañ doon wër ñëw nañ egsi nañ toog nañ nuroowuñu ak ñun ñi nga xam ne dañoo am ay sunuy soxla ci senegal googu Afrique ak feneen ak feneen yu ñu war a dox am sunu passeport bii rek lañu am muy passeport sénégalais bi su jeexee foofu fii lañu war a mën a renouveler mënuñoo génn fenn fenn fenn amuñu sauf conduite amuñu passeport ngir yàlla ngir yàlla sarax leen ñu ngeen wax ci bokk ñu jàppale ñu autorité ubbi ambassade yi ndax ñu mën a am passeport nañ ñu dimbale ngir yàlla billaay loolu laa ne naa leen ko wax crédit kër la ci man boobu ba tey maa koy jàmbat ci laa ne naa aw xalaas xalaas luñ fa aw mu réglé wu sarax leen ñu ci ngir yàlla xalaas warkal ñun nag lii lañ ci mën hmm. waaw ak wax nit dëgg waaw wax sénégalais yi nekk bitim réew dëgg. Uh-huh. consulat yi ñuy toj ak ambassade yi nuy toj du fulla du fayda. inconvénient yaa ngi nii. gisuloo benn tubaab. mbaa benn américain bu nekk bitim réew am lu ko naxari ci réew mu dem ca ambassade ba toj ko. Uh-huh. la ngay toj après yaay wëlbatiku di daw ca gannaaw loola ngir soxla wenn kayit ngir lijjanti sa fa ngay xëy wala sa benn mbir ci réew ma nga ne mu mel na saf ak maroo ci yow. Uh-huh. kon nit da mer ba pare muus. réew mi nu ne ñu ngi laal bant musunoo def coup d'état ci Sénégal gi on a une armée Senghor ba ci Macky Sall ba après Macky Sall ki fi toog karta koy fal karta koy fol ñun am maturité boobu kon lu waaye mer mer mer sa carte d'identité sa carte war nga toog ci bu ne bis wote ba jot na nga dem ci urne yi tànn kala neex jël xobam ni ko ca pëy bu ngoonee mu saxaar xel lu neex way wi daal <laughs> Diagne man dafa am yoo xam ne xàmmewu ma ko jaaxaan di saw waaw waaw soreen toow nu doo tooyal kenn doo tooyal kenn sa doo ngay tooyal ñaata bus Dakar dem dikk lañ fi lakk. wallay ñaata otoy jàmbur lañ fi lakk. wallay teer bi ñaata magasin waaw. dem nañ bay dagg ay fil ci teer bi. waa léegi ak BRT ji. moo tax mënul yegg te ñun doomi baadoola yi. parce que loolu nee nañ dañoo mer. waaw mu neex danga koy fay. mu naqari da nga koy fay mu naqari da nga koy koy fay koy fay ci nii maa nga fay ko. ci euh, euh, euh, nu mu tëti bus yi nga dajeel di taal di lakk. waaw. maanaam li wolof naan merum ginaar la saful tusuñe saful tusuñe de problème bi mooy munoo wax a wax a wax a wax bal ki la merloo baa boo ki nga ne moo la merloo dugg ci yëf taxaw ci arrêt bi di dugg ci bus Amadou Sall dugg il faut que ñu gën a yaraat suñu bopp ah, jaañ yàlla daf maa sutural hmm. ma dem ci ci ci ci ci ci ci mennam réew hmm. ñuy football hmm. ñu ne une minute de silence jaañ ñëpp ne tekk ki sa wet di nooyi sax da nga koy dégg ci stade bi ni mu ngande wallay ma ñëw fii Sénégal ñu ne une minute de silence. <laughs> gars yi di wuy téléphone. jaay ma jaay ma ji puusal sama kanam gisuma. fi nga toog baaxul ci une minute de silence. allo chéri foo ne maa ngi nii ndax yaa ngi may seet bi ñu ngi minute de silence. c'est que dafa am yu bari yoo xam ne ñun habitué wuñ ko. que loolu dafa bokk ci savoir vivre doomu aadama. wallay man dégg naa fi ay xale yu nekk ci biir gaal gi ci biir géej gi. Mhm. di wax ba ni abaa dimbali ñu lii mu siiw ñëpp yëg ko ma génn fii wax. <laughs> tës ci géej gi mu metti ñëpp nag. ñëpp la metti mu metti ñëpp. yi nañ dem nañ dem ñoom duñ dem. duñ dem te xale yi bu ñu faatoo leen rek lañ ci mën mooy jël benn affiche daal di koy posté daal ni suñu frère. suñu te ñoom duñ dem. duñ dem te xale yaa ngi dee ci géej gi. foog na muus. am na lu ma metti sax ci ci dem li ma ci metti bari na. waaw mais ñiy jël seen doom yu ndaw. Mhm. di leen dugalaale ci gaal. ah keroog gisoo dem muy nekkoon ci gaal gi lekk nit ñi ñi ngi tooñ. ak jigéen ñi ñu siif ci gaal yi. jaañ fii jigéen juñ fi dugal ci sëy boo bëggul nga ne mariage forcé la. waaw wala tax ngay forcé sa doom di ko yóbbu ci gaal. dëgg dëgg est-ce que moom am na choix wu dem. tey boo ko doon laaj. waaw yow kay booy dem bàyyi fi sa doom. mais ñi jël seen doom yi dañ yóbbu ci gaal yi tamit ñu ñu war a wax dëgg la. Ah, kii moom. ba pare njaay nit ñee ngi escroquer nit ñi. waaw waaw. dañu la escroqué ah, bien wu jàmbur yi ñu escroqué. fan kii de xam nga lu ko dal. <laughs> ab moodu moodu la bu nekk bitim réew. te itam li nga tëjee xaalis bi day na war trop moom loolu dana ko waxtaanee lan la li nga tëjee xaalis nga tëjee sa. sa revue de presse ji. Ah. sa repo ji loolu dana ko waxtaanee. mooy <laughs> bi. laay laay ah, nan dem. kii daal bitim réew la nekk am kër gu muy jaay fii benn courtier woo ko ne ko dafa ñu bëgg kër gi hmm. yéen ñi bañ am kër da koo gën a sedd. Mbadou. Diagne <laughs> déglul. acca. dama nekk bitim réew yàlla def ma am benn ci samay bien yu mu bëggoon euh, mettre en vente. ma joxoon ko benn courtier courtier bi war ko war ko jaay. léegi nag à ma grande surprise mu woo ma le matin très tôt boobu noonu ñun il faisait euh, moom mi ngi nekkoon huit heures au Sénégal mu woo ma ne ma dafa am benn docteur Fall. un certain Mamadou Fall boo xam ne que dafa intéressé wu ci bien bi mu ni moom dafa war a ñibbi France jabaru tubaab la am dafa bëgg jënd bien bi le plus vite possible euh, ñu def le nécessaire parce que moom bëgg na ko trop daal mais vu ni muy waxee ak ni muy doxee ma jàpp ni moom xaritam la moom le courtier mun ne ma léegi je te donner même son numéro bu ko defee yow nga woo ko par la suite ci laa woo waa ji le certain monsieur Fall ma ma wax ko fi ma bokk mu wax ma fi mu bokk et cetera ma waa man bëgg sa kër gi wax dëgg naa yàlla bëgg naa ko jënd euh, léegi ma wax ko prix bi il n'a même pas discuté quoi pour côté prix ne ma non man dama ko bëgg def cabinet dëkk foofu ci ci kaw ci suuf ma def ko sama cabinet di liggéey foofu quoi ma ne ko ok c'est bon déglu dina arrangé sax cité bi quoi voilà parce que man j'ai d'autres villas yu ma yu ma war mën a quoi bii moom dama ko bëgg commercialiser vite fait dama ko bëgg a quoi mu ni d'accord léegi ñu commencé démarche yi ma woo sama mandataire ñu def def def ba au final euh, l'après-midi mu ne ma léegi il ñu contacter sa notaire ma wax ko sama notaire fi mu nekk wax sama turu notaire et tout ça mu léegi sama mandataire woo ma kooku moom sama cousin la yaayam moo nàmp jox sama papa xam naa ko bu baax xam naa jikko moo ñu yar c'est un gars très sérieux et puis mag la quoi bi ma woowee mun ne ma gars yi nee nañ expertise bi ma ko effectivement expertise bi defuñu ko même notaire bi sax bi ko woowee léegi nii elle ma mu ne ma léegi moom waa ji nee na am na benn expert boo xam ne mën nañ defal expertise ma ko ok amul problème léegi expertise bi nekk somme bi mooy mu nekk mo deux cent mille CFA mooy trois cent euros léegi bi mu defee loolu mu ne ma waa ji nee nañu fay ko deux cent mille ma ne ko non grand nekk mu wàññi ko cent cinquante mille wala cent mille mu ne ma non man def naa ko barki dem rek pour benn villa bu ñu doon jaay mais noonu lay demee quoi ça veut dire que euh, cent cinquante ba deux cent mille yenn cabine yi sax deux cent mille lañ koy defee donc c'est après mu yónnee ko sur le coup deux cent ñu demaat ba ngoon gi gën a sori ay vers quinze heures treize heures heure Sénégal ay treize heures daal la fe naa parce que quinze heures la woon fii mu ne ma waa ji nee na fiscalité bi fayuñu ko cent mille la ma ne ko d'accord grand mais yow doo leen wax rek ñoom ñu fay yëpp bu ñu fayee léegi ñu dindi ko ci prévente bi mu ne non waa ji nee na moom jabar tubaab la am moom du doxee noonu waa ji daal ni ma ko gisee ni xaalisam la yor te il est pressé léegi du dara léegi bàyyi rek ma fay après bu ko defee grand tamit moom il était pour ñu jaay parce que xam na ni man dama bëgg jaay foofu pour nekk si leneen mu ne mu amul problème parce que ñi ma gis ñi wax ni daal dal nañ sama xel quoi. moom tamit il a été amadoué. xalaas. dégg nga <laughs> moom woon. waaw yi dañ koo nax mais xam nga ci naka. Hmm. déglu mu yeggale ko. moom tamit il a léegi courtier bi nga xam ne nag moom moo ma boole ak euh, le Mamadou Fall la soi-disant docteur courtier boobu man xam naa ko bu baax mais moom moo ñu moo ñu moo ñu yóbbu en erreur ñun yëpp parce que moom bi ma woowee ce matin. le matin dafa ma xamal ni que sama benn waay moo bëgg kër gi loolu nag moo tax ma jël confiance yëpp jox ko parce que mag la moom tamit il a de 60 ans nekk na mag te xam naa jikkoom daal waaw. bi ñu demee ba ngoon gi ba 300 mille dugg waa ji ne expert bi mi ngi jógee Thiès mi ngi ñëw mais mi ngi jógee Thiès mi ngi ñëw mi ngi jógee Thiès mi ngi ñëw ba ay 19 heures il était 15 13 heures au Sénégal ba 19 heures gisuñu kenn ma avertir sama waa kër. buñ bu ñëwee ubbil leen kër googu del tel kër ngeen ubbil leen ko et cetera. ñoom ñu dem foofu defar yëpp teg dem fa toog toog toog gisuñu kenn finalement ñu ne ma ñoom gisuñu kenn quoi yàlla def ma woo grand bi ma ne ko man daal lii ma gis nii xeeñul neex daal lu ma bëggoon daal mooy ñu jéem a xool nan la ñuy def pour jot leen parce que man daal li ma sàmm que yàlla ndax nag quoi parce que le Mamadou Fall la woo naa notaire bi. je mais ai la main pour que mu recevoir leen demain vendredi. mais bi mu koy woo pour àq loolu envoyé naa ko au jour mais il répond pas et en ligne quoi mu ne ma non comme docteur la peut dafay liggéey ñu nekk ci loolu moom tam mu wooleen leen woo le soi-disant expert jotatu ko ba finalement wax dëgg na yàlla mu yónnee leen ay audio pour xamal na ne vous nous avez arnaqué mais on va déposer une plainte léegi nag boo gisee moo dénoncé lii. dafa bëri samay mbokk moodu moodu yoo xam ne que ni ñu ngi subir ay conséquence yu bari yu mel nii xam nga tey nga toog di jaay sa alal nit ñëw woola la une personne de confiance ne la dama dafa am ku ko bëgg nga ne ko waaw ngeen dem ba ci biir journée bi sa notaire xamal la ne il faut moom expertise ñoom ñu la am na expertise kon dangay ngay defee ne yëpp nañ ci yoon ndekete loo yoo yoo lépp ay nax la bi ñu demee ndekete moom nee na euh, courtier bi bu yàlla defee ma jënd kër gi dinaa la may cinq millions ndekete loolu yëpp man ci à la laa ko yëg biñ demee ba ci biir sama mandataire man mu ni ma woo naa courtier bi courtier bi maa fay savoir que ni waa ji sur Facebook la ko xamee ci laa woo courtier bi ma ne ko yow mu ah, ma ne ko man j'ai confiance en toi énormément comment tu peux me dire que ni waa ji sur Facebook nga ko xamee mu ne ma non man sax xaw ma ko ci Facebook sama beneen collègue courtier moo ko xam sur Facebook mu bëggoon jënd fi benn terrain ci cité bi ak 23 millions boo ñëwoon ci cité bi man jotuma koo gis ñu ni c'est un certain docteur bu nekk euh, mbuur cabinet foofu la nekk un du monsieur Mamadou mu du Fall quinze moo nekk ci WhatsApp am. léegi nag ñun déposé nañ suñu plainte au brigade de recherche su ma mënee mu delloo xaalis bi parce que 300000 xaalis la xaalis. te maa ngi ci avertir bépp sénégalais képp koo xam ne yaa ngi jaay sa bien bul ko jox courtier parce que courtier yi problème yu ñu nekk ñun Modou Modou ñoon ci dugal problème yu ñu nekk ñoom li ñu bëgg rek mooy ni ñu jotee seen xaalis ñu xool benn inconvénient ak benn souci boo xam ne mën na ci am ñoom comment ils peuvent juste avoir de l'argent loolu moo leen intéressé léegi nag ñun en dugal nañ suñu xaalis ñàkk nañ suñu xaalis ba pare aussi tas suñu yaakaar daal dafa jot a. nu def ba a xalaas bi gën a gudd. ak ñun waxtaan a waxtaan kay moom ni ñuy def ba xalaas bi gën a gudd ñu seet émission yi jiitu xalaas ñu koy def ba wàññiku. a teel a yëkkati. waaw. Ah. bu ko mu def émission 9h bi noonu may tuuti ñun tam ñu laal. <laughs> mooy dëgg tan man même la moom El Hadj léegi man teg ñëpp dinaa xëy fii chaque jour 9h je viendrai faire la pause de l'antenne 9h. ñu bàyyi sport yi daw ba 9h15 20 xalaas commencé. 9h te nañu maximum 9h25 ñu commencé xalaas. te na nga waxante ak def sport yi. nu ñu arrêté programme sport yi 9h25 léegi 9h25 la ñuy commencé. ba pare jaañ yéen réew mi clamé na ma ak yéen bu subaa laa koy wax loolu. réew Sénégal bi. seetaan ngeen leen trop trop trop loolu dinaa la ko wax. bu subaa man man Diagne sama ginnaaw ba tey takku ma benn ndombal tànk. jëluma benn décision. appliqué laa fi nekk. en direct des ngeen doon déglu noonu. c'est tout. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère mi ñu indil Gambie di vite fait Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous savon bu baax bi te efficace di savon créole Real Mix Premium Energy Drink batterie automobile Sisa ak Africa Fly Tour ñu ràññee ko lool ci réew mi ci assistance visa ñoo leen doon may seen émission xalaas